dana am benn bànqaas bu sax ci garab googu lu xale bi gën a màgg bi di gën di màgg di gën a gudd di gën a dëgër saa bu demee ba xale bi baalix te mooy àgg ci mesure yaaxu dagg boobu jox ko xale bi mu dem ci loolu ba am fukki doom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 dama bëgg nga ñaanal ma kon yàlla jagleel ma ab bànqaas bu jóge ca àjjana yaa xoob yëkkati ay loxoom jeme ko ci asamaan daal ni allahumma yow yàlla inni ya as'aluka an tahaba li yusufa xusnan min aljanna yaftaxiru bihi ala jamihi ixwati mu ne ko yow yàlla maa ngi lay ñaan nga may yusuf mi ab bànqaas bu jóge ci àjjana boo xam ne dana ci ndamu ci kaw mbokkam yépp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 واحد بن منبه من نتلي خبر بي واخنا ني بي يوسف دي جيسلولي جامونو بوب ميغي تولي سي جيروم نياري ات گنت گيمو گنتات تان يالا نتلي كو سي القران بي موكاي گنت بوب ميغي تولي فوكي ات اك نيار گنت گوگو يالا نتلي سي القران ماي لي واخني يوسف لابيه يا ابتي اني رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين mu ni ko man de damaa gént yow sama baay damaa gént gis fukki biddiw ak ñaar ak jant bi ak weer bi ma gis leen ñu fàqe ca kaw asamaaw leer nañ ba ak rot ci sama kanam di fi sujjut loolu yi daf ma jaaxal lool ma am ci tiitaange bi mu ko nettalee Yaaqub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 mu continué di nettali xissa bi bim ko waxee loolu yi yusuf waatal ko maanaam yahud bi waatal ko ni ko wallahi nii la ñu tudd noonu dong la ñu tudd ba fa la doxe dal di jébbalu wax nañ ni li waral nag dëgg-dëgg ñu gën a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 am ku ni ah yeen ya kan, di da ngeen da ngeen yakkan seen bay dana leen jox yusuf ngeen di xalaat na leen fi rek di ngeen fi tabal ci ay bën ka wax mooy wax robel robel momi yi mooy ki magoon ci doomu yaqub ne leen loolu de seen bay du ko xalaat waaye da ngeen di def melni pexe mi ngeen def mooy da ngeen di woo yusuf di fo ci wetam ba xemeem loo ko pom fo bu ko defé bu sakulé bopam and ak ñun dem ca all ba luñu bëgg dañ ko man ndax bu ko sakko ci bayam ak bayam dañ ko bay ñu def pexé mom dem di fo ci wetu e ci wetu yusuf pomme neex ci moom loolu mun leen waaw yeen bu ngeen di dem ci all ba di sanni ak rab bi pomme mel ni ngeen defoo ñu ko waaw léegi xana bëggo bay waxal sa bayam bay la nga and ak ñun mu daal dem ci bay bayam ni ko dama bëgg nga and nga boole ma ak goné yi ma and ak ñom dem ci all ba di rabbi and ak ñom dem sanni and ak ñom di mëna fo ndax wéetaay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 bu ko bu méré ba japp ci ligi man nako xar def ko ñaari gal da non la amé katan kon nan lay man lak yaay yusuf mu nek ci suñu biir ta ñaar ñi ñi ci suñu biir ta ñi lañ mel non biñ waxé lolu nak xelum yaqub dal ci ñom yusuf it ñewal bopam ba taxaw ci kanam bayam niko baye mama and ak ñom dem mu niko ko bëggal nga sa bop ma baye la nga dem waaw waaye ma dem and ak ñom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 daal di gon continuer di len gungé bañu genn ñu ko nak sunu baye man nga delu mun len ma ngi len di denk ragal yalla denk na len sama soppe bi muy yusuf ñaan na len ngir jëmmi yalla bu xiifee na ngeen ko jox mu lek bu maré na ngeen ko jox mu naan tayit na ngeen ko topto te bu len ko sanal bu len ko gatchal yen ñëpp na ngeen and jokko tey te ci sen bir ñu ko waaw suñu bay ba di nga wax ba di rafet la fas nañ ko yéen def ñepp say dom lañ mom mi suñu rak la suñu mbokk la kenn la ci nun danañ ko jàppe ñu jàpp suñu bopp mo nu gën sax ngir ciofet gi nga am ci mom sopp mun leen nag yàlla de mooy sama kuutaat ci yéen ragal naa loolu ngeen sànq yal na leen yàlla wax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 am nañu wax ni mi nek dekk digënté dekk dëkk bi wax tabariya ak khuts ci dëgg yoon wi la nek fi mu ci ben xur mu nekkon ci ben xur ci xur dekk dëkk bi ñuy wax tabariya manam matna 3 km ci digën fañ ko sanni ak kërian ya xop matna ñetti kilomètres ñetti mu doon ab ten boo xamante ten bu wéet la bu lëndëm suuf yaatu lool waaye kaw gi dafa xat Kep ku ci san rek da ngay daal alku ngir bari gum bari ay mbir mbiran yu fay nek ci bir ndax do am fenn fo jaar ba yegit ndox may dafa safon xorom lool wax nañ ni bënn googu mi ngi bokk ci bënn yi nga xamantene sam saam doomi noox moo ko dañ ko tudon sax jubul ahsan manam bënnuk ñakkar yi lañ ko tudon ndax kuñ bëgg ma sa andi problème rek dañu dem ba ci ga ñu la fa dal di dem biñ babak ba bëgg yusuf alayhi salam tàmbali ko yor ci ten bi muy jafandu ci pind bi ñu mujj daal ni xaaral ñu set meneen pexe jël ak buum takk loxo yi ca ko ba mu féete ñu boole ñaar gannaaw di summi mbumi daal di fa buum gi takk ko ci ba mu mbokk sama bu mi ngeen summi dalloo leen ko ci sama kaw ma de ci suturaal sama awra te su ma dee ci biir bënn gi it mu mën a sama càngaay sama ñaari loxo yi ngeen takk ci sama gannaaw te ngeen maa dimbale dindi ko ndax su ma duggee ci biir jiit yi ak daan yi ak lu mu war a fekk ci biir bu ma mën a jege ko cee falang ñu ni ko wool jant bi ak weer wi ak fukki biddéew ak benn ya nga géntoon ñoo lay ñu xeet li la gannaaw da ngay ak wilaay ci suñ kaw doom wool jant bi ak weer wi ak fukki ak benn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 ginaaw sabal ngeen ko ci bënd gi bàyyi leen ko fi ci tam wax nañ ni biñ tàbbalee yusuf ci biir bënd gi yàlla daf ko daal di leeralal bënd ga ba mu leer nañ daal di neexal ndox ma yit ci barke bi yusuf moomu dugg ci biir ba ndox moomu sax mujj na am lek soxlaatul naan ngir ndox mu neexam yàlla yabalal ko am malaayika mu di ko ñëw dindi ñaari loxo yi ñu takkoon ci ginnaaw malaayka ma ñëw dindi ko te bañ tàbbalee Ibrahima ca bënn ga euh, ca sawara sax su mi woon ay yéreem mbub ma ko Jibril andiloon moom la bàyyam faboon raw ko def ko lu mel ni ndomba takkal ko ko malaaka ma dindi teppi loolee muy mbu moomee mu solal ko ko ni ko suuturale ko sa awra mooy ma ñu defaloon sa maam bam ba mu nekkee ci njàqare moom la ko Jibril andiloon ba mu nekkee ci jamono yi njàqare bañ ko tàbbalee ci sa awra soloon bu moom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 mañ summi won lek yàpp wa fab dara ja takal ko ci mbuma daal di ànd ak mbuma nak yobbu ko ci yàqoob bañ demee ba jup kër ga ñi fekk yàqoob mu tok ci digg yoon bi di len xaar ndax ndax rek ni war nañu ñibi ci heure bi yusuf biñ ba jégué ko di rek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 waaye nag mbu maa ngi nii takk deret loolu yi mooy li alquran nettali ni wa jaa'u abaahum ishaan yabkuun ñu ñëw seen ñëwal seen baay ci waxtu gee di jooy li tax ñu ñëw ci waxtu guddi lëndëm koog it mooy bëgg mu lëndëm ndax ñu mën a gën a ñeme ci ci ci lay yi ñi lay ñu waxe yaqoob loolu yi mu joy joy yu tar dal leen ni anam buma ñu won ko mbubi mun leen musuma gis lu melni ak till bi lewe ni till gi yit musuma ko gis till gi lek sama dom te mbumi xoti ko fen loolu it musuma ko koo dégg fen mosumaa gis lu melni nii bi lewe lewete yit musuma ko gis dal di yoxu dal di xam ndax nakar bu mu am rek ni sax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 daal di waxante ci seen biir ni kat gis ngeen ni seen baay di li ñu ko wax gëmu ko ndax bi ñu ko ne tilligee ko lekk nee na tilligu lewati nii mosuma ko gis ndax tilligu lekk nit te mbuuma xotti ko wut fenn loolu yi man jaaxam kon yéen xam ngeen ni seen baay li ngeen ko wax gëmu ko ñu waxante ko ci seen biir daal di nag ngeen bëggee seen baay li ngeen di wax mu gëm ko dëggal ko da ngeen di demaat ca bënd ga topp tànk yi ña ko ñañ ko jaayoon topp leen buñ demee ba ak ba ba dab leen fukki dërëm ak ñaar yii ñu ko jaay woon ñu delloo leen ko te jël Yuusuf ray ko tasaar dindi faar yi andi andil ko andil ko bàyyi andil ko suñu bàyyi ni ko mu ngi nii jàpp wal tëll ga lekk ne ko faar yaa ngi nii ndax mu gëm li ñuy wax yaxoo saa ni leen loolu de bu ngeen ko defee colère gi doxoon sama diggante ak ci li ngeen waxoon ne du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 léegi daal seet leen beneen xalaat bu dul loolu ñu delluwaat ci seen bàyyi di jooyaat wane wan ko rek naqar wu ñu am ci yëfi démb yi rek ci yëf xob moom Yuusuf moom ñu wax ni te léegi daf ko lekk Yaaxub ni leen li ngeen di wax bu dee dëgg ni till ko lekk dem leen rëbb till ga ba jàpp ko andil ma ko ñu daal di jël seeni buum dem di rëbbi ba jàpp ak till dem ci àll ba rëbb ba rëbb ak ko takk ko ba mu dëgër ñu andi ko ni ko till gi moo ko lekk ndax gis nañ mu tax dara biñ ko taxawalee ci kanam yonent yàlla Yaaqub alayhi salaam Yaaqub ni leen dindi leen takk-takk yi ngeen takk till gi ñu dindi ko yeew gañ ko yeewoon Yaaqub jàkkaarloog till gi ni ko kaay till gi jéggi mbooloo mi ba agsi ci kanam ndax ab yonent la ku diis la kàddoom dafa woyofut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 nee na tëlli daal di tontu tontu lu leer lu ñëpp yi dégg ne ko laa déedéet giñ naa ci àqi bijaaw bii nga bijaaw di yow yonente yàlla bi ni lekku ma ndax yéen yonente yi seen yàpp ak seen deret dafa araam ci nun araam na ci nun ndégment yi ñuy lekk deret yonent loolu araam la ci nun te kuñ tooñ laa man kuñ fenal laa man tëll gi ndax man tëll gi tumuranke la joo xam ne maa nga jóge ba misra yaaxoob ni ko loo doon wut fii ca suufu si kanaan si nga dugg ana la tanut mu ne ko dama fay ñëw ngir di seet si samay mbokk suma mbokki tëll yu nekk fii ñoo ma tax a misra ba fii di leen seet si daal ay doom ni leen bal sawalat lakum am amran fa sabrun jamil gis naa ni seeni bakkan rek moo leen rafetalal dara ngeen gëm ko waaye nag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 yaqub ci doomam jooji la ko sabab mooy dafa mas a rendi ab gàtt te booba dafa woor ba mu reyee gàtt bi am benn dëkkandoom bu ñëw ko mu dimbale ko ci mu bañ loolu tax yàlla nattoo ko mbirum yuusuf sànk ko man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 sama jam yi nga xamanteni ñu may jaamu lañ ñu ragal lañ ñi ngi top ci sa ginnaaw warmaal la sumbi seeni dal ñoom ñep di dox yow nga def nga sol say dal day dana la natto ci say dom ko xam des na ko jaay def ko ab jam fi ci bir dekk bi nga xamanteni ci nga toroxale ci nga ci nga and sama jam yi ni bir dekk bi muy misra dana wut ci say dom ko xamanteni des na ko fi jaay mu don fi ab jam, wax nañ ni li sabab nattub yusuf bobu ñu jaay ko ba def ko ab jam.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 yi ñuy lekk indi ay paquet ak indi ay banana ñi nañ ay banana la woon ak pom ñi ndir yàpp ya ñu wàjj la woon waaye na ay paquet ak fa andi yañ wara jafandiko fop yusuf nak, solal ko yere yu jek ni ko nak yaa leen di servi bam ba di leen servi ñom ñep ñu teen di xol ngir tarba, ba dag seeni lox te yeguñ ko dañu jek jek rek gis dara ji di yol ngir jël gum jël seeni xol mom yusuf wax bi neena na wax nañu ñen fukki jigéen ya fa dajewoon am na ci juroom ñaar yo xamni fofa lañ faato ngir tiofel gop bu ñu am ci yusuf ak ñàkk a mas gis ku melni mom ci àdduna bi jigéen ji gisee loolu ñu def nak mu leral leen nak ni leen wala laxat raawatuhu an nafsihi ni leen man mi nak mako don sakku mu bañ li leen dal moma dal legi nak li ma bëgg ci mom bu ko defut des na ko tejj des na ko tejj des na ko ñoom ñépp dal di andono wax ni xaasa lillahi ma hada bashara kii de du mbindeef kii malaayka rek la mën a doon mu jóge ci yàlla ndax tar bu mel nii mosuñ ko gis ci nit jigéen ña dajaloo ni yusuf te ngaa topp sa kilifa gi lim bëgg ci yow nga def jigéen ja ne ah wala il lam yafal ma amruhu lay la yusjananna wala yakuna min asaaxirin lima ma koy digal bu lanké bañ ko def dess na ko tejj te dana dinañ ko toroxal bañ ko sakko sakko sakko ay yon yon yon yusuf dal di ñaan borom ni ko day li may jigéen ñi sakku di kaso bi ma ko gënal mooy rabbi asijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna wa akum min jahilin ni ko kaso bi ñu may daldi moo ma gënal ñaawte bi ñu may mm, woo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 sàkku gëm sàkk ci buur bi ñu demal te fàtte yàlla ba tey loolu ñu jomte ci moom ñetteelu njumte ba mooy ba mu dajalee ay mbokkam te jubloo téye mbokkam Bunyaamin mi mu bokkal ndey da leen dajal ne leen innakum la saarixoon da ngeen a sàcc tumal kooku moo leen tumal ak càcc ba tey njuumte la ci moom wax na ni bi nga xamante ni tëj nañu Yuusuf dafa duggandoo ak ñaari xale yu góor kenn ki yoo xamante ni dañ daan liggéeyal bor bi muy walid ibnu rayyan mom buru misra bu mag ñom ñako daan liggéeyal kenn ki moko daan defaral mbubb mburu yor affaire ñam yëpp diko togg diko lijanti kenn ki moko daan eh, de wut toppatoo affaire naan manam moy nal orange ji bam doon ndox mu diko naan mi ngi tudon layos bor bi da mere ba tej leen ci kaso ba ngir dañu wax ni ñom ñaar dañu waxtaan ba ni dafa am mbolom bok ci wa dëkk bi ñi ñëw neexal leen ger leen leen ñu bëgg ngeen posé na bool bi pour mu dee bañ d'accord ñoom ñaar ci war koo pose posé na biñ demee ba war koo pose na ñoom ñaar kenn ki wor bañ ñëwee ba ci boor bi ba ka doon defar ñam wa taaj ñam bi ka war a yor naan nga ne ko bool bi bu lekk ñam yi de ndax dañ ko posé léegi ki defaroon ñam yi daal di ne boor bi yow itam naan gi bul ko naan ndax posé na nga ci ñu weeroo ci seen biir nguur gi daal leen di jàpp ñaar ñëpp tëj leen leen dama leen tëj ba lijjanti seen mbir ndax yéen ñaar ñëpp wéeru leen daal di essayé nag lekk gam fab ko jox ko dara mu lekk ko daal di dee mu xam kooku moom defal na ci biir mu fab naan ko jox ko dara loolu naan ko dara ko dara kon yi kële la muy ki nga xamante ni moo yoroon wax yusuf ni ko bul naan ndax ñam wi dañ ko dañ ko posé ka birum mbirum ñam wa dal ni bor bi bu lek ndax li na bul naan yow ya itam ndax naan gi posen lañ ci def yusuf eh, muy dal di wa legi bor bi dal di wax ki togon ñam ni ko lekkal mu lank bañ lek mu wax ki defaron naan gi ni ko naanal mu naan wañu ko dara mu fab ñam wi jox ko dara mu lek ko dal di de mu xamni kon war yi ci koog yi la nek waye ñaar ñi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 Fek mangir kas kaas bi bur bi di naane ma nal cere jox ko ko mu nan loli moy li alquran wax ni fa khala ahaduhuma arani araniya asiru khamra dama jiss sa bop di nal yani ayna ban manam resen la ci djiblu kaja ca des muy ka doon defaral buur bi ñam wa muy kay defar akhir mburu yegge ne ko man tay Dama gis mu melni ci sama kaw bopp bi dama ci gis ñetti seen ñetti ñetti mburu la ci gis ma gis picc yi ba tong ci sama bop di lek ci mburu yooyu ñu bëgg nak nga dimbulé ñu ci tawi la ñu gënt googu lan lay takki ndax yow day gis nañ ne ku baax gis nañ ni ko amu rafetal nga wax nañ ni rafetal ñuy wax nañ ko gisee moy dañoo gis ni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 di leen dénk di leen wax ni leen ab nattu la boo xam ne yàlla ko tek legi yéen ñep na ngeen muñ tax bu ngeen muñee lepay jeex bañ ko waxe seen gent yoy nak mu den lol dana len ko firil waya bu ëllëgee la len ko firil ñu ne ko ah li de kon ci mbiri kat yi la njabar kat yi ñoy def lu mel non ma ñoy def loo len laaj nañ la bi sangam bo ñewé tan la ci wax lu leer mu len du mab kat waaye nag zalikuma mimma allamani rabbi loolu yi sama borom moo ma ko xamal daal leen di biralal diine nekk won leen ni leen duma am njabarkat daal ciy teg ni leen inni taraktu millata xawmin laa yuminuuna billahi wa hum bil axirati hum kafirun naa diine ña nga xamante ne gëmuñ yàlla te dañoo wetti alaxira wa tabaatu millata abaiya ibrahima wa ishaqa wa yaqub ngir mi sama baay yi jaaroon ci laa jaar muy Ibrahim ak Isxaaqa ak Yaqub te ñoom di dawuñ jaamu kudul yàlla maa kaana lanaa an nushrika xalaatuñu bokkaale ak yàlla dara bi nga xamante ne waxtaan naa ñoom te bowaat leen ba ñu gis xelum Yuusuf mu rafet gisub xam-xamam bu rafet mu woo leen ci islaam woowaa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 wa maa nahnu bi taawil ahlam bi alimin te ñun sax nag xamuñ taawili pirim géntu yi dem ñun sax nag xamuñ taawili pirim géntu yi dem ñun sax nag xamuñ taawili pirim géntu yi dem ñun sax nag xamuñ taawili pirim géntu yi dem ñun sax nag xamuñ taawili pirim géntu yi dem ñun sax nag xamuñ taawili pirim géntu yi dem ñun sax nag xamuñ taawili pirim